fexe nañ ba sa yëpp di rëg-rëg ndax créé nañ ay pexe ne dafa am diggante ñaari couple yu sëy ay tappalante ay naxante ba mu feeñ ñu wane ko wan la ne yow soxna si sa borom kër gi moom ñooñu ñooyam day tax li mu lay wax du dëgg wala bët ku wax kër gi ne sa soxna si génnam bi bëri na lool fu ne mu dem fa tey mu seeti nijaayam bu gënaaw soo mu seeti frère am est-ce que yàlla rek a tax ñi ngi tax sëy yi di ñàkk confiance te sëy moom benn secret am mooy confiance fii ñaar ñi ko séq kenn ku ne wóolu na morom ma problème yi ci des mën nañ ko dépassé mais bis bu kenn ci ñoom jàppee ne morom bi dafay war rek sëy boobu naqari la te naqari ga mën na yóbbu ci tas kon ñoom ñi ngi participer directement ak indirectement ci tas sëy te yàlla ñoom Oustaz Alioune Sall lañu wax ne li mu daganal li mu ci gën a bañ mooy passé sëy yaa ngi tas diggante xarit yaa ngi yàq diggante liggéeykat yi ak ñi ngi yàq te lépp li gën a bëri la koy yàq information la bu jaar test wala bu jaar xalaas kon du ñu ay émission yu baax et puis lan lan lan lay jëriñ c'est-à-dire lan lan lay jëriñ c'est-à-dire émission bi lu muy ban service lay rendre ban service xëy na bu ma paree ñu jot ñu ko xam du wax service bu ëpp. ay moykat yàlla la seen dem jàkk ji teewul li ñuy njaaloo sa jëkkër ji lu mu la wax day fet sa jabar ji lu mu la wax day fet loolu loolu dana defar am réew loolu mën naa defar réew su ko defee li ciy teg mooy jéem a tënk yenn sabab yi nga xam ne jàpp nañ ne bokk na ci li ñu indi fii ñu toll nii te mooy doomu réew mi juddoo ci réew mi yaroo fi nekk ay jullit ay jullit jur leen ñuy damoo nekk jullit di damoo nekk taalibe ba pare di xëy di gont ci lu test bi loolu situation la bu ñu war a xool fu ñu jógee ndax moom gëstoo ko lool jullit taalibe man jullit laa man taalibe laa taalibe murid saadiq wala taalibe cheikh te boo xëyee boo jant soow kaddu koo yëkkati luy tas société bi kaddu koo luy tas sëy léegi loolu il faut nga comprendre lu tax ko ko jéem du du kon asbaab yooyu ñu tënk ci ba ci njëkk mooy taqsir kathir min al usari al muslima fi tarbiyati awlaadi mooy ñu bëri ci ñun nangootuñoo sonn ci yar seen njaboot lu bëri ci ñun nangootu ñoo sonn ci yar njaboot yi dëgg dëgg la yarul njaboot ji du ñun dong ko séq dañ ko séq ñeneen ñaar dañ ko séq ak école bi séq ko mbedd mi li ma tuddee mbedd mi mooy état bi mbedd mi état moo ko contrôler waaye ñun nañ def suñu war gar ba pare la suñ defee li war ba pare xëy na bu école bi deful nit ñi ni tam lam mënaan a yàq dana wàññi ko su mbedd mi deful ni ñun itam li mënoon yàq dana wàññi ko waaye léegi kenn ci ñun joxatul yitte ca waroon a jox yar jabootam xamal leen luy mbaax xamal leen ne dañoo war a baax te xamal leen ne mbaax boobu ñoom ñoo ko soxla du ci delloo ci njukkal kenn yow yaa soxlaa baax pour dul ci àdduna ñu ngi jëm ci àdduna boo xam ne adduna bu nar a métti te ñi mu nar a gën gën a métti ñoom mu ñu yaree ko kon nag damaa bëgg nga mën a dékku ko boobu di ñëw adduna boobu di ñëw ku yarul moo ko mën a dékku na nag mooy xam sa bopp ndax soo xamee sa bopp xam sa borom soo sa borom xam sa bopp xam loo war a mel ak loo wër a mel mun loo fee wéet ba kenn du xam looy def am na piir boo mën a nit ñi mais am na ki ëpp solo ci xam li ngay def ki ci ëpp solo mun loo ko nëbb ndax nit léeg-léeg bu ñu xamee li ngay def du tax ñu sonal la wala ñu mënal la dara mais am na koo xam ne li mu xam ci yow bu ko jëfandikoo mu jeexital ci kooku nag mun loo ko nëbb mooy borom bi tabaraka wa taala kooku xamal ko ne dund du bëri xaalis xaalis jumtukaay la du ay moyen du du ay finalité xaalis daf ñoo war a jàppale ci dund waaye waruñoo dund pour wut xaalis ndax lu dul nit rek lu dul nit rek yàlla da koo tàggat ngir nit am jàmm kon nit warta nangooti di jaamu loo xam ne yàlla da koo tàggatoon pour mu jàmm yàlla dafa bind xaalis sant xaalis ne ko fajal soxla yu nit waaye yàlla binduwul nit ne ko demal jàmm xaalis ñun ëppal ëppal nañ war nañ ëppal suñu bopp jàmm xaalis soo xamee loolu xaa du fu xaalis am nga dem fa soo xamee loolu du fu xaalis taaje gi jël ko ndax bépp xaalis bu lay xañ jàmm adduna wala alaaxira da ko fa bàyyi loolu nag kenn du ko faraat dañ ki ko man dañ koy tàmbaleek moom fa mu tàmbale bët bu set nga gis way jur woo xam dafay nattu ay njabootam di tasaare xaalis ci kër gi fu nekk mu teg fa dara teg fii 500 teg fee 100 am ñoo xam ne dañ fay jaar romb yeneen triant yi ñoom dañ ko la ña la papa cinq cent yi wala ñu ne yaay cinq yi yooyu yooyu yi ndaw yi pour wan la ne man du ko sàcc fekk boobu cent franc bi ñu bëgg jël parce que bu la woonee cinq bi bu jëlee cent bi doo ko ci <laughs> yooyu yooyu triant yi ndaw yi am na ñoo xam ne duñ ko laal ay njabootam màggee xaalis bi yóbbu seen fit ba tax ñuy liggéey foo xam ne la fay jógee lu yàq nation la ay misaal yu bari am na ci ci wàllu yar ci wàllu yar yar seen njaboot ci muñ luñ amul farata la de farata njaboot ci muñ luñ la de kenn mënut a mën sa bopp toujours te boo dee def sa njaboot lu seen xel daj ñu jàpp ne dañ ko war a am buñ ko amul ca wut ko feneen te fu ñu ko wutee feneen man nañoo wane ñàkk jom foofa man naa tax ñu teg leen fu ñu la tegu teg la fu ñu leen tegu teg leen ñoom fu ñu la ñu ngi nekk ni benn xissa boo xam ne rahmatullahi alayhi Mawlaana Seydi Haadi Touré moom lay wax ne moo ko def benn soxla su baax dem Fass Touré dem ci daara bi gis taalibe yi ñu sonn lool xiif taalibe moom ku wax ne du xiif foofu loo dëgg taalibe daara yu bëri taalibe dañuy xiif ndax xiifa bi tàmbalee ci boo lekkee mu jeex suur naa te desut moom rafetal la rek ku ku suur da ngay desal ku suur da desal te daara yu bëri te des amuf soxna si yaramam daw ndeysaan ku baax la soxna su baax xamul daara mu ñeewante xale yi mu daal ñibbisi rek daal di songu waxandeem jël fa xaalis bëri dem ci dëkk ba jënd ganaar yu bëree bëri bëri indi ganaar yi ci soode leen suqi leen defar defar ba mu rafet mu togg préparé ganaar yi bañ ñor mu def ko ci ñaari bool yi yan oto dem Fass Touré nuyu suñu aadi ziare ko ne ko damaa yàqaloon daara ji tey nga may ma nangul ma ma yekkal daara ji tey seen bàjj na la yekk si yaay na ko jërëjëf kontaan ci lu moom lool ñaanal ko soxna si dem sëñ aadi mel ni daa fàtte bool bi ku ñëw rek nuyoo xeel bool bi génn dem bool ba yendu fa fanaan fa yenduwaat fanaanaat fa <laughs> ci tàngooru fastul yi tàngooru Sénégal ñu jékki-jékki mel dafa am luy xeeñ ndekkee ganaar yi ndëpp ne am ku ñëw ñu ko ci gën a papa dafa mel ni am na luy xeeñ de mu ne mbaa du loolu jël jël gas jël wàllu jël gas ak ci gannaaw ko suul ñu dem ci gannaaw kër gas ba mu ko ñu wëq ca ñaari bagaan ya suul xam nga loolu soo ko nettalee ku xamul lu mu demee danaan góor gi dafa soxor ndax ñàkk mën a toggal say taalibe ganaar ngay doy na waaye ñu toggal leen ganaar ba pare nga ne duñ ci